wéer ci seen bëgg-bëgg digital store indil na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Encore X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoo jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store, améliorez votre quotidien. ni euh, sëñ Cheikh ak sëñ Bass euh, si Abdou Khadir ñooñu ñu yor yegg si nit ñi dana ci jóge ak benn ok oustaz bu toog nga toog oustaz ay moment di toog nga bañ ñàkk nga ànd ak moom loolu li muy tegtal mooy nekkate lépp day jàngal nit ki ne ko rek bu société bi la ko fekk ñu am ak xeet amul seet kon bokk na ci ñu tax ajuma di am yéewal nit ki ne ko yàlla lépp rek loolu am am solo moo tax bu ñuy woote ajuma ne xayya ala salaa wala xayya ala falaax القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله yéen jóg yàlla su ngeen déggee dootul ajuma jóg leen def di tànk yu dëgër jëli maa ngi leen di siyaare ki ñu jàkkaarloo mooy Serigne Ibrahima Kouaté moom mooy ingénieur jumaa ji ngeen gis nii moo yoroon liggéey bi àndee kaak bu baax ñu ñu fekk loolu ñëpp si Ibrahima ñu ngi leen siyaare waaye dina ma diis ma di ko waxee ci biir jumaa ji waxtu woo xam ne soreetul boo ma ko mayee bu ñu génnee loo ma bëgg laaj ma laaj ma ah xanaa jërëjëfaat sëriñ Saliou jërëjëfaat sëriñ Saliou jaaraama Cheikh Béthio waaw nag maa ngi lay maa ngi sàkku ñu yemale ko foofu bu nu génnee loo ma bëgg laaj laaj ma jërëjëf. sëñ Ibrahima waaw noonu la demee waxtu bi soreetul waxtu baa soreetul sëñ bi yegg si na. sëñ bi moo yegg si moo tax sëñ bi moo yegg bi moo yegg si waaw ma bi sëñ bi moo yegg si nii waaw baa yegg si mooy bi ñuy bàyyi jaay seen bureau loolu la ñu mën a teg yeneen tool ba yàgg bu doon station bàyyee daw bi mu bàyyee daw taxaw ñett distance borom xel mu gàtt bu ko ko fekk danaan wata bi ni borom day taxawal déedéet ndekete ñëw na booba dana jël lu ko mën a jàllale jël lu jël lu ko mën a jàllale nag du pertement mooy julit bi julit bi dafa am benn énergie bu mu war a jël bu ko mën a jàllale ci suñu borom boobu nag bu xëyee di jaay ba bëccëg mu dem julli ji ci jumaa ja bu dellu si waatee day mel ne oto boobu nga xam na essence boo xam ne jël na essence ba fees bu timisee bu demee ca jumaa ja day mel ne euh, oto boo xam ne jël na essence ba fees essence yooyu muy jël nag day niroo ko taxawaalu kon waaye ndekete yootee ba a jàll rek la kon jullit bu waxtu julli jotee mu dem di julli day mel ne boo xam ne dafa daw ba yàgg muy jëli essence bi barab ngir bëgg a jàlla jàllaat ca destination ba jëmoom moo tax yonent bi salaa sallam ne doomu aadama léppam ak jaamu yàlla la léppi doomu aadama ak jaamu yàlla la moo tax alquran ne wadarul bay'a bàyyi leen jaay daalikum xayrun lakum booloo mi nga ko gisee nii Serigne Bass Abdou Khadir mi Serigne. Serigne Bass Abdou Khadir moo yegg si nii mbooloo bi Serigne Bass Abdou Khadir moo yegg si di waajal julli ñaar rakk nii waaw Serigne Bass Abdou a nekk nii. lépp bu fi kenn ñëw fii bàyyi ma fii bàyyi ma fii ajju ba ajju bu ko ak yàlla bi yéen parce que dañu mos a laajee lu ko def ay bakkaar yi day faral di def commencé di leen nekkul ne bakkaar yi kala la ñu soxla yàlla te nekk di ko kala yàlla maa ko mën a am lu ko mën a am si yàlla su ne bàyyee bakkaar yi nag yi ajju ba ajju day wax day commencé bakkaar yi la ma leen di saa si la ñu woon ndax kenn ku ne su ak yàlla nekkul bu mu gën il descend de 25 fois par jour est-ce que dañu la dese actuel ñu ne ko déedéet mën na jàppaloo nit ñi day jàpp xëy jàpp bëccëg jàpp teg sa la jàpp guddi mu jàpp guddi mu jàpp nee na jàpp ne lu mu yor sa lu mu yor gis man la ko mën a tey kon loolu def bokkaat bi bi ñu nattee ci jàpp ne mu ne ko taxaw julli mbooloo suñu borom dana dégg sa jàpp daal di wàcc àdduna ne ñu ko xam ne dina àdduna ba ba àdduna bi yëngu si loolu di wàcc bàkkaar yi la day am ci kanam zikr bala bala nga xam dafa ci avancé rek bala nga mën kon loolu kon bokk na ni yoon bi nga xam sa war diggante ak bala nga xam li ko njëkk a bi ci des al ila salatul juma nit ki su génnee dem te ajjuma ji ginnaaw bu sol yem sol raay gëttam dem teel di julli ba mu dellu si waat kër benn jéego ba mu teg ci tànk bi muy joram aw yiw la benn jéego bu mu teg ci tànk bi jàmmono surtout ñaaw kese kon loolu itam bokk na ci li nga xam ne ci dem ajuma am na ko ak yoon muy lu réer bu doon lépp jàll nag dañu war a ñu xaw daañu gis ne ndekete yoo leen en tant que ñun ay taalibe bokk ci wàllu séeréer seen àll ba mu dëkkaat ci dëkk bu benn bii nga xam ne mooy Touba nekkaat ñoom ñu def kenn laay def tax yàlla na man yoo xam ne ay tey jërëjëf ñu wax ñu ne dañu war a dañu jëf ñu jëf da lay jëf di nga man ay kenn nag da lay loolu sama taxaw bi man la bu ñu nekkee nag njabootu si waxtaan yi soxla ko muy koo xam ne yàlla dogal na moom li ñu tegoon maa ngi koy lii yàlla mooy di dem ci maa ngi daal di ko daal di ko ok léegi am naa leen loolu seen baax bu ñu xamal yoo xam ne bokk na dafa war a jël xaj moom ci dem ba ci xàll nga dina ay am dafa ci jàng ba bu ko am na jàppale bi ñu ko sànni ko kooku ku la leen man dafay wax ginnaaw wala man loolu bi des taxi bi ñu ko traité ci charia léegi saxal julli ba lan si lan dees na ko mu ñëw bu lan ko julli ba jàppale ko des na ko c'est pas No, no, no.

jërëjëf Mbacke sëñ Moustapha Mbacke Cheikh Abdou Khadir bi mu yegsee sëñ Moustapha Cheikh Abdoulaye Lahad maanaam bi baax gi agarte bi tedd yi fi nekk yëpp daal di koy jox ndigal ni ko yow la sëriñ Cheikh waxoon nga jiite jumaa jii tey di bis bi ñu ko ubbee sëñ bi rafet na ko lool yónnee ca otoom fuu dem mi ngi ànd ak xutba bi génne ko dégg ngeen xutba bi ngeen fi dégg tey bi mu noppee nag fekk koo bokkam yii sëñ Moussa Mbacké moom Cheikh Abdoulaye Lahat mu ngi nii toog Cheikh Mamadou Basir moom sëriñ Taliou ak sëriñ Abdoul Khadir moom sëriñ Taliou ak Cheikh Mamadou Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir ak Cheikh Mamadou Mourtada moom Xalim Salim ñoom ñëpp ñu ñëw nag Cheikh Mamadou Bachir moom Sëñ Abdoul Khadir teewal magam bu baax di ko fi yónni tey ku ne xam si gëj na Sëriñ Cheikh suñu Sëriñ Salim ak Cheikh Mamadou Mourtada mu ñëw teewal ko fi boole ko jarbaatu boppam bii di seenu taalibe di sëñ Cheikh Mbacke Cheikh Abdoul Aziz Cheikh Mamadou Bachir mu Cheikh Abdoul Khadir ñëw teewal ko fi fekkoon nag ak njabootu sëriñ Cheikh yëpp waaye sëriñ Saliou Thioune ak lu sëriñ Cheikh ak ñu yëpp mbag yi ñu ngi nii sëriñ moom nii wutulu mbokk wutulu am sëriñ Cheikh sëriñ Saliou yëpp lañu ñu ngi bàyyi bëggu Cheikh Béthio bàyyi la mooy liggéey sëriñ Saliou waaye sëriñ Saliou nangu la ko ko ndax tey jumaa mooy seere ju mag diggante sëriñ Cheikh Béthio ak sëriñ Saliou kon nag moom ñu ngi toog tey ak njabootu sëñ Cheikh Béthio yëpp sëñ bi foog na lépp jëmbalaat sëñ Cheikh waaye ànd ko keneen jëmbal ko boppam tàmbali nag bu tàkk saanee mu tàmbaliwaat yeneen liggéey ba ba muy fekk bàyyi yàlla ne liggéey sëñ Cheikh um sëñ Cheikh rek moom la sëñ Cheikh Diour moom sëñ Cheikh Béthio kon Mbacké Cheikh Moustapha ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm tettub sëñ Cheikh ci réew mi ak diini am na tàmbaliwaayam fu mu yem sëñ Cheikh um sëñ Cheikh ba ca xeeru jumaa kenn